julli ci yonentam alayhi salaatu wassalaam di sëlmal ci yonent boobu nga xamee ni mooy soppeem moom yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la teg loxo keneen ku ñëw ci ginnaaw yonent bi nga topp ku wuuteeg waxu yonent bi wuuteeg waxu yàlla nekkuloo ci sharia ñu ngi koy sant moom yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent boobu nga xamee ni alladi ixtaara inda al mawti ala rafiqi moom la yàlla waxoon ni dundal ci àddina bu mu neex la ma jële la fi yóbbu la aljana wala nga dem léegi fekk si ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni que damay ñëw fekk si la ndax xam na lu fay fekki ñu ñu pour ñu ñun ñu des ñi nag ñoo xamul lu ñuy fekk fa yàlla moo tax ñu war a góor góorgóorlu ci suñu bopp góorgóorlu ci topp yàlla la góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóorlu ci wax wax ju jub góorgóorlu ci jëf jëf ju jub loolu rek moo ñuy dimbale yenn ci yàlla suturaal defal ñu ci di julli ci yenentam ak i ñeñeme ci saxaabaam yi nga xamee ni gàddaayoon nañu ci seen dëkk ci makkatal mukarram ñëw ci madinatal munawwar gàddaay ca makka bàyyi seen alal ak seen ñoñ foofa ñëw ci madinatal munawwar di fa faqiir ay fuqaraa waaye waa lansaar ñoom itam génn ci seen kër yi yaatal ka bàyyi leen ñu toog ànd ak ñoom ngir di dëgg diine ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu wa salaam yàlla bu dañ ci yonent bi ak ñeñeem ki saxaabaam yooyu gannaaw loolu ialamu na ngeen xam ngeen doomu aadama yi an luy mbir tey mbir xat sunna yoonal nañu sunnaal nañu daxiyatun tabaski li xorrin muslimin ñeel gor boo xamee ne julit la xaadirin te mën ku mën tabaski tabaski bàyyi benn tabaski ci biir kër waxu mag ñi ñooy dëgg lim leen waxoon fii moo fi nekk ñoom ba ñu demee taxani gis nañu porte yeeg yëpp waaye dañu jël yu biir yi ëllëg nga fa lépp lu fi xebaat bees defal loo xame ni rek moom nga fa fekkoon te loolu moo gën bu ko defee nag ku ajuwul màkk mën nga tabaski waaye ku aju màkk moom tabaski waru ko lu dul hadaaya moo ko war foofu nee na mën nga ko defal sa bopp woy an abu wayhi faqirayni sa ñaari wayjur faqirayni yi ko aajo yoo mën nga leen ko defal indi yoo xamee ni ay ay ay wax a bees la rek benn tabaski nañ kare ci kër yi ñëpp déedéet ku ko am rek la mooy suñu bu ko defee nag sa ndaw sa doom it waa an walidi saaxi Sidi Xaaji Malik moom bind wax ko loo fi kër kër yi moo la raw bu ko defee nag وإن يتيما فيضحي له من له عليه تمكين جرين bi sax ku ko yore moo koy tabaski قال بعض العلماء من له ثوبان أحدهما يكفيه باع الثاني واشترى به الأضحية وأمي صح di nga xam ñaari yére benn bi doy na benn bi mën nga ko jaay jënd ci tabaski jaay benn bi jënd tabaski tabaski sunna la mooy suñu feet mooy suñu programme ñun jullit ñi beneen programme bu ñu tëral fii amuñu tabaski rek mooy suñu programme ak koor ka defee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari gàtt gatti yo xamé ni seen bët yi dafa tës ngéru yu wéx yu bégg ñu seen togguwaay yi dafa ñuul seen tank yi dafa ñuul bët yi it dafa ñuul yent bi rey ka sallallahu alayhi wa sallam ni ma ngi rey sama gatt bu jëkk bi man ak sama waa kër ñaareelu gatt bi ma ngi koy reyal sama xeet ku mënul kon it boko amul bul ci son bu ci son defal li yàlla sant xamu ñak def lu ñu yàlla sant rek moy ñu indi coono ko defé nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni azimu dahayakum fa innaha ala sirati maqiyakum na ngeen màggal seen tebeski tebeski yi si ngeen di war jaar ci sirati maqiyakum ko defee nag di góorgóorlu ci tabaski ca maam Ibrahima la woon alayhi salaatu wassalaam histoire bi bis bu nekk ngeen xam ngeen